jërëjëf salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki aduna mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ah, saa su ne ñu leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221 point euh, nu ñu leen koy waxee rek saa su ñoo leen di indil ñenn ci ay ndaanaan euh, ñoo leen di indil ñenn nga xamante ne ni euh, di ci ànd ak yéen ba tax tey dama ñëw fi nga xamante moo di Sicap Liberté 2 Sicap Liberté 2 nag su ma fi duggee dama fi seet si xale boo xamante ni allah nekk une animatrice journaliste ci milieu bi di ci wane boppam di ci def li nga xamante moo di li nga xamante moom tuuti waxtaana ah ci li nga xamante ni tey yaakaar naa moo di actualité ak li nga xamante ni moo di rëq-rëq jamono laata loolu mbokki dama koy bàyyi rek mu nuyoog mbokk internetu Sénégal Buzz 221 point com Fifi Touré maa ngi lay nuyu. <laughs> mon frère maa ngi lay ziar El Hadj mm-hmm. euh, di nuyu internet euh, Sénégal Buzz yëpp. Mm-hmm. di rafetlu seet si bi ngeen ma seet si tey. <laughs> di rafetlu seet si bi ko seet si tey ah yaakaar naa ne noonu la la nuyoo mais nuyoo bi gàtt na tàngaay bee la jàpp xanaa. dafa tàng élage dafa tàng loolu te dama xam ne su ma continuer ak yow day gën a tàng waaw mag yow dend bi nii dafa nar a neex. Eh. moo tax may xaar lu muy gën a dem muy gën a neex may gën a wax. Eh. waaw noonu lay demee noonu la koy defee ak moom maman ah, ni ñu koy waxee rek suñu naataango la ñu bokk li nga xamante ni moo di milieu bi ah ba taxit mu ciy def liggéey bu am solo ba taxit saa su ne rek ah dañuy am mbégte ak kontaan baag di toog ak ñoom ñu mel nii ndax it ñu ngi koy def ci réew mi nit ñi di leen ci bàyyi xel waaye laataa ñu débuté suñu waxtaan ak moom rek porteur de te jàpp naa ni day wax nit ñi di ko bàyyi xel ban sensibilisation ngay joxe ci li nga xamante ne mooy mbas ne ci réew Euh, voilà yaakaar naa El ñu bëri bàyyee nañ ma xel ci mbas bi nga xamante ni am na ndax bu mu amee dañoo arrêté activité yëpp concentré wu ci Instagram euh, chaque jour ci guddi à partir de vingt et une heures des fois sax vingt heures parce que ñu nekk ci diaspora bi moo tax mais chaque jour à partir de 20h 21h damay commencer ba ay 1h du matin 2h du matin lépp di def ay émissions yoo xamante ni dañuy sensibiliser. ndax képp ko invité li nga indi a def mooy lan wax ci mbas mi. Euh, booy teg leneen nga teg ci leneen. mais tout le temps yaa ngi joxe message yaa ngi sensibiliser yàlla indi na nattu bi ci ñun. mu nekk loo xamante ni nag dañ koy jël. waaw ndaxte yàlla lu mu def lu ne dafa gën. peut-être am na lu mu bëgg a réorganiser ba tax mu indi lii mais ñun ñëpp léegi xam nañ mesures barrières yi. masque yi ñu respecté ko maag yow nu ñu def un mètre lañ jël ah. <laughs> tu mm. micro bi sax nangu woo mu jege ma parce que xam nga mm-hmm. xam nga lu ñuy bañ ak lu mu lu mu lii donc c'est ça mesures yi ñëpp xam nañ ko masque nañu respecté suñuy loxo tout le temps ñu génn ba a génn élage man su ma génnul sax laa gën a mën a raxas sama loxo que ma génnee donc voilà ñu ñu respecté daal li nga xamante ni moom la ministère de la santé wax voilà c'est ça respecté wul maam booy dóor la ba tax it nañu koy respecte saa su ne am ah, maam ñu ngi lay nuyu bu baax au passage foofu laa <laughs> ma tooñ tuuti xam nga yow xam nga bu baax sama maam dafa ragal corona sama xarit yi bu ñu ñëw damay jéem a fexe sax du ñuy làqatoo bu dugg ndax moom pour moom corona mag yi rek lay jël. damaa yóot dangaa yóot donc moom maam guddal fan maam Fatou Gningue guddal fan bu baax corona du la laal yow maa ko garanti dégg nga ah, voilà la élage. ñoo ko garanti maam guddal fan yal na la yàlla defal jàmm ah. te mbas mi bañ la gis bañ la xool ah. yàlla bàyyi la suñu kanam bu baax a baax amin ah waaye ba tey dañuy nekk. sama empreinte. li ci bëri Kaolack laa ko defee. Hmm. amaana affaire bii moo tax. Hmm. ñu bëri commencé ma bàyyi xel mais Kaolack moo nekk sama base. Hmm. foofu laa jàngee foofu laa commencé nekk ci benn rajo bu ñuy wax Alfayda FM. Mhm. ma def cinq ans euh, de carrière après ci laa ñëwee Dakar en même temps foofu laa amee sama master de à l'ISM Kaolack. Mhm. donc euh, noonu la noonu laa fa nekkee tamit nekk euh, productrice nekk promotrice di def ay événement foofu euh, képp koo xamante ni artistes yi nga nekk Dakar rek mhm. Fifi production indi na la Kaolack liggéey ak ak man mhm. en même temps tamit dafa gérer ay communication autorité yi fay ñëw mhm. di soxla seen communication jaar yoon nekk attaché de presse en même temps donc c'est ça Fifi pro Fifi Fifi en général en résumé en fait. Mhm. loolu mooy Fifi plus yeneen ak yeneen yi nga xamante ne parce que dama sopp. Mhm. man dama yàgg yore communication ay association mhm. ay mouvement dañ may woo Fifi viens kay gérer ñu suñu koom. et tout donc dañ ma bàyyi may fenn waa Kaolack. après loolu nag euh, laa ñëw dugg si Dakar en 2019. waaw parce que 2020 fii la ma fekk en 2019 laa ñëw Dakar bu ma ñëwee nag ci laa intégré Diaspora 221. Mhm. waaw ci nga intégré Diaspora 221 mais avant mhm. euh, ba commencé premier mois deuxième mois. Mhm. site yu bëri ma. waaw site yu bëri ma. mais Babacar dafa nekk koo xamante ni vraiment da lay jox gëdd bi la def ci yow li war ba tax doonam mu dem ci beneen. Mhm. voilà mais du ma ne nag du ma du ma génn diaspora parce que kenn ku nekk euh, ñaan nga yàlla di évoluer. Mhm. waaw looloo tax tamit benn instant mhm. bu ma defee li ma war Kaolack ma ñëw fii te ñaan naa yàlla tamit di gën a évoluer. xam naa nee naa nee naa ko PDG Babacar man je may demee ji yow yaa may signé contrat bi <laughs> tu moom moo ma koy donc ku nekk nag day ñaan yàlla évolution. parce que li may nekk diaspora chaque instant ma ngi xool lu may évoluer ci diaspora bi. voilà xamante ne yéen a koy évoluer ci diaspora bi waaye nga nekk ci milieu boo xamante dama bëgg ñu waxtaan ci tuuti parce que je pense que milieu la boo xamante c'est pas du tout facile à chaque fois ñu ngi ci dégg yenn détails yi nga xamante xale jigéen ñu ngi koy wax wala ñu koy génnee promotion canapé ci biir milieu bi ndax loolu yow gëm nga ko. Euh, peut-être dinaa ko gëm parce que yàgg naa toog di seetaan ay interview nit yi di ci wax mm-hmm. ñi koy wax tamit damay gëm ne lu ñuy wax peut-être am na parce que bu amutoon du ñu toog di ko wax mm-hmm. mais man musuma dajee kaa boobu te mm-hmm. ñaan ma yàlla dajee kaa boobu mm-hmm. voilà donc mën na am nag parce que foo dem fu nekk nag muy ci millier bi ci yeneen ak yeneen ñoo yam donc buñ ko focus kese ñun suñu milieu bi dañ koy teel a dañ ko dañ ko teel a ñaawal ñun dañoo teel a ñaawal milieu bi te millier bu noobu la tey jii nee naa buñ toogee une semaine joxe wuñ information ku génn yaa ngi ci musuba parce que teeluñ la alerté ne lii ak lii ak lii mu ngi ci dëkk bi donc milieu bu noble la mais lu bon fépp la am lu baax fépp la am donc milieu bi nice man de dundaguma ko très sérieux milieu bu nice mais damay ñëw tuuti tamit suñu nga xamante ne ñoo di suñu mbokk judee ndax tey bëgg dara war na mën a jaral la tamit nga def dara non non non non am na fu ma toog dégg ñu naan euh, dégg benn animatrice di rey boppam naan moom duñ ko fay sax mais moom day dem parce que dafa bëgg siiw en fait ma ne bon ku nekk nag ak lii la dugal ci milieu bi hmm. man jàpp naa ne man mu passion moomu ci dugal parce que maa ngi allié yeneen lu bokkut ak yi maa ngi hmm. liggéey ak ñeneen hmm. euh, en freelance lu bokkut ak euh, lii may liggéey lii passion la rek ma ah, voilà lii passion la rek et donc boo ci liggéey pour buzz lu la buzz may demal nga jël mais boo ci duggee par passion yow di nga xam bu baax fay teg sa tànk ak foo bëgg a yegg. Mhm. man nag par passion laa duggee ci affaire bi di di wax ñëpp nag nañ ci duggee par passion mais buzz kese walaay buzz day jeex. <laughs> buzz day jeex de mais année élage yi fi amoon buzz ana ñu tey. Mhm. seen buzz fay na gis nañ fi ku nekk ku nekk ku nekk ci milieu bi ñu ñu daan gën a poussé pour ñu dugg ci milieu bi parce que dañ daan toog di leen seetaan. tey ana ñu fay nañ yeneen génération ñooy ñëw te après suñu génération tamit dañuy fey ñeneen ak ñeneen ñooy ñëw donc buzz éphémère la bu ñu dugg par buzz mais plutôt par passion et par amour. Mhm. plutôt par passion par ñëw ci buzz boobu noonu nga wax léegi ma insister si tuuti parce que jàpp naa tamit ci sénégalais li ñu gëm nga xam fi fi actuellement ci fan yi buzz bi nga xamante ni moo génn fan yi loolu mënul ñàkk ñu laal ci tuuti problème boobu noonu. waaw El mooy li wax rek comme li ngeen gis ci vidéo bi. noonu la demee euh, dem naa defi sama liggéey bu ma demee ndog ndog dal ma fa euh, di ci sant yàlla nag ndax mënoon na ma dal feneen fu dul ci liggéey mais sac la ñu ne diw ci liggéeyam la ko lii dal loolu fierté la dama ciy sant yàlla bu baax ñaawut donc euh, dem naa def sama interview posé ko question boo xamante ni comprendreul sens bi parce que peut-être sax moom liirul question bi correctement bëgg na def yenn affaire am ba tax mu dóor pour am ci biir bi wala pour am ci leneen dem naa kër Pawlish mbay fekk ko yoof def ak moom interview euh, posé naa yeneen question bu bokk te loolu mais affaire bee indi loolu mais ci kon ci loolu laay limité wu mais ma ne ko euh, sama waa ji Pawlish euh, nit yi nee nañ da nga bokk ci boroom ñaari tur yi loolu booy toog di ko déglu lan la lay def mm-hmm. est-ce que kon accuser naa ko ok am ñu ne dama insister ci question bi mm. ma ne leen foofu jumte am na insister wu ma ci question bi mm. mais le fekk que mu ne ma ne ma yow yaay première personne bu ñëw toog fii ne ma man borom ñaari tour laa mm. léegi nag loolu moo ngi may jaxaseeg sénégalais yi parce que man waxuma ko yow borom ñaari tour nga di mi problème dafa génn na ko yow da nga bokk ci ñooñu ba tuddee ko deb ba xaw ma tu vois donc man bëggoon xam impression yooyu buy toog di ko dégg ndax dina ko metti wala ndax dundul loolu wala quelque chose du genre pour mun a passer ci yeneen question mais le fekk que mun a ma fifi yow yaay première personne bu ne ma man borom ñaar tur laa foofu nag laa insister xam nga nit yi du ñuy am dégg-dégg des fois dañuy jàpp ne insister naa rek kon ci question bi laa insister moo tax man yóbbulaat leen na leen ñu xoolaat vidéo bi j'ai pas insisté par rapport à la question mais plutôt par rapport à le fait mu ne ma man maa ko ko ciiñ ci loolu laa insisté te ñaari wax lañ ci wax ñett ci loolu affaire bi am ma ne ko non waxuma la ko donc man tamit foog ma seeta sama bopp parce que tuumaal la ma ci wax ji fa que ma seeta sama bopp loolu dama ci doon insister c'est très normal nee naa toog naa ak interview je cite ak Amady Badiane ma dugg ci sensible mu tontu ma tontu bu am respect tontu boo xamante ni macha allah après j'ai respecté sa décision ndax man su ma duggee foo xamante ni dafay sensible soo bëgg soo bëggul rek damay génnaan naa ko rocceeku dem ci beneen question et damay respecter sa décision donc insisté wu ma ci Pawlish mais kenn du ma tuumaal tamit parce que du bëgg ku ko tuumaal du ma bëgg tuumaal loolu kese la après nag fa la coup bi ñëw mu dóor ma ma dégg version bu ne damm na xam na moom ngi hôpital dara dalu version bi ma ci dégg ñu bëri nee nañ dangeen ko créer buzz yéen ko complot yéen ko créer rien que pour créer benn buzz wala ampleur pour Sénégal Sénégal moo nekk loo xam te ne bu xewee rek ku ci ne da ngay analyser noonu nekkul complot pour Beuz. déggoo ma ne fii ku nekk juge nga ndeysaan fii ku nekk Sénégal. dafa bari ay médecins boo feebaree tey teg. léegi ñu ne la garab bi ngay jënd <laughs> garab bi ngay jënd ñun ñëpp ay médecins lañ ay pharmaciens lañ mais tamit Sénégal ñun ñëpp ay juge lañ bu dara amee rek kenn ku ne day jàpp ne moo la gën a xam. bu si marché bi tamit bu dee si marché bi ay coach lañ. gis nga coach di woo waroon dugg. tu vois jeex na. Uh-huh. El Hadj ak résumé sa bopp. Uh-huh. donc dinañ ne Beuz la. Uh-huh. dégg naa ay youtubeur yu toog mm-hmm. naan ay dañoo créer buzz ndeysaan c'est c'est c'est malheureux mm-hmm. ñàkk maanu foofu la commencé mm-hmm. loo maîtriser wul bu ci dugal neel sama njot li ma xalaat mais bul ne lii la am nga droit analyser neel d'après sama analyse lii ak lii ak lii laa gis parce que damay bëgg nit kuy analyser mais daray buzz amu ci élage man du ma waree noonu buzz buzz maa ngi ci di yokk xam-xam tout le temps heure bu ma yeewoo balaa may tëdd du dugg ci YouTube di xool présentateur yi gën a mag ci àddina di xool ay références yi jënd livre yoo xamante ne mun na ma dolli xam-xam par rapport ak sama liggéey donc buzz du ma ko utee noonu nee naa su doon buzz kese kese Kaolack laay toog ndax nu ñu fay tuddee maire Kaolack noonu lañ ma fay tuddee ndax liggéey yi ma fa daan def ak inici ak innovation yi ma fa indi donc du ma ñëw ba Dakar nag di indee buzz yi beneen anam mais nag yàlla nattu na ma lii am ba ma am ci ba buzz bi bu ñuy wax naan buzz la ba ba ma dégg ci turu bës bi noonu mm-hmm. mais nag nameewu ma ko woon nii très franchement na meewoo ko woon nii très franchement je pense que sa question nga yoroon doon ko posé nit ku ne am nga xam am nga droit laajte li nga xamante moom nga bëgg laaj je pense que question boobu nekk woon pour yow li nga xamante ne ngi dem ci ñoom waaye dama insisté waat tuuti ci ñaar ñi nga xamante tey ku ci mel ni Pawlish Mbaye wala Ouzin euh, du question que dama leen attaqué mais war nañ mën am respect tuuti ci journaliste yi c'est ndax nekkul cër boo xamante ni su ñun la wala nu mu demee. bokk na ci li ma gën a li ma gën a yëngal ba ma naan ko fii ñëpp a réew te loolu man kay méttit lu du ci jégalu ñëpp. parce que du woon sama cër ma ne ko fii ñëpp a réew donc d' accord foofu juum naa. Euh, mais lu ma metti mooy publish tey fu tollee fu mu toll. site internet yi dañ cee joué rôle bu am solo. duñ ko génne wutoon tey du feeñ. kenn du ko xam donc bu mu ñëwee ba foofu mu naan ma dama réew. non loolu dafay metti tu vois après nag daf ma ci yóbbaale. daf ma yóbbaale ci mouvance bi ba ma nekkoon fii ñëpp a réew mais je m'explique waxuma ko fii ñëpp a parce que man dama réew de man du ma jaay réewande maa ngi jaay leneen nag leneen mais pas réewande mais dama ko bëggoon expliquer na ko réewande bi ngay wax ku nekk moo ngi ci yow te doo ko génne da nga koy denc wane yaruwaay tu vois ba mu yóbbaale ko tu vois donc loolu laa ko doon expliquer looloo tax ma ne ko fii ñëpp a mais foofu dama fay dama fa juum te maa ngi jégalu ñëpp mais li ma doon expliquer mooy pour mu yam et fii ñëpp a ku nekk mën na génn sa réewande mais doo ko génne ku nekk day jaayante yaru jaay classe jaay personalité jaay avancé ku nekk yaa ngi ut noo avancé mais pas ay réewande mm-hmm. donc looloo taxoon ma génn moo yooyu noonu mais Pawlish rek léppam ci àddunaam comédie la koy jàppee day victimiser boppam wane ni dañ ma tooñ dañ ma posé dañ ma jiiñ te amaana dara amul ci ndax waxuma ko loolu amaana dara amu ci ndax waxoo ko loolu moom it Pawlish Mbaye maa ngi koy nuyu au passage ndax gis naa benn euh, sortem bi nga xamante def na ko moom euh, euh, kilifa moo di ay excuse ni tey ñoo di journaliste yi ñu nit ñu ngi koy jéggala ah, ndax ni ñu koy toogee waaye di leen xamal rek saa su ah ñun ak yéen ñoo bokk réew mi ni ngeen ko waxee site internet yee tax nit ñi xam leen télé taxul nit ñi xam leen kon ngal la delloo leen cër bi nga xam xamante ne moom la ñu leen site internet di seeti ngeen delloo leen seen place parce que jàpp naa ni intérêt bu ñu leen seetee si ñoom la nekk. te tout à fait mooy li ñuy wax rek. tey jii da ngay soxla artiste bi. mais artiste bi am na fi mu toll par force da lay wow ñun mënuñoo dund sans ñoom ñoom mënuñu dund sans ñun. c'est vrai c'est malheureux Sénégal da ngay indi ay ay da ngay innover di teg ay banquier di teg ay économiste mais duñ la faale mais imagine boo génnee benn artiste. mooy ëpp vue que banquier bi nga teg wala économiste bi nga teg et c'est malheureux wax naa leen ko nee naa leen dem ngeen dugg diaspora 221 ngeen xool samay émission ku nekk teg naa la genre nit émission yàlla indi affaire bi nii nit yi nag seen analyse ñoo ko moom seen commentaire ñoo ko moom dañ leen koy cëral seen cër la ñoo ko moom dañ leen koy respecter mais nag façon bu nekk toog nañ ak ku nekk liggéey nañ ak ku nekk euh, interviewé nañ ku nekk waaw mais nag ñoom bëgg nañ loolu mais bu ñu leen indilee lu am solo pour dëkk bi nañuy dem nañ ko vu tu vois que ni boo leen tegalee léeg-léeg la gën a seetaan que lii mm-hmm. mais nañuy dem di vu lu am solo lañ leen indil voilà donc ñun ñoo ngi fi pour ñoom. Mm. lu am solo rek lañ leen di undal. Mm. parce que ñun ñoom ñooy suñu raison d'être. Mm. mais nañuy seetaan yu am solo yi tamit. Mm-hmm. voilà nañuy seetaan lu solo yi ndax yaakaar naa ni nga ko waxee rek Sénégal lu yàq la ñuy gën a mën a ko bàyyi xel que luy defar. bof c'est malheureux nag. Mm-hmm. da ngay sonn mm-hmm. di ut ay articles yoo xamante ni lu am solo la mais boo tegee tey ji article boobu teg publish. très sérieusement publish la ñuy dem xool ko. et te ñoom ñoo lay réclamer ne la lee soxla. mën nañ ko dem dem xooli très sérieux ñun ñëpp xam nga ñoo bokk métier bi. dañu mhm. dugal article ñaari article ñu xool. dañ koy dund. <laughs> bee duñ ko vu bee la ñuy vu mooy ëpp vu ci article yi nga jot a dugal sa site. Mhm. donc nag buñ ñu buñ ñu blâmé ñoo ngi indi lu am solo ñoo ko dul xool rek mhm. waaw. nañu am solo ban jàngat ban conseil ngay jox. image bi ñu ah, di leen wax ni lépp lu ñu def benn rek nañ ko yokk. Mm-hmm. parce que man je pense que ni amul sax ko joxe conseil parce que bokk naa ci ñun ci mujjee dugg. Mm-hmm. mais comme li wax rek macha allah xel du doy. Mm-hmm. ndax dëgg moom puso la xale sax da koy bu la ko joxee rek respecté ko ndax yokkute lay doon ci yow. bu kenn xeeb kenn. mais di wax rek ne métier bi métier bu noble la tey ci euh, lu nit xam ñun ñoo la ko jëlee. foo yeggul indil la ko. kon nag dañ ko war a respecté ñi nga xamante ni ñoo ci bëgg a dugg euh, bu ñu xeeb kenn bu ñu xeeb benn élage nañu dem nañu gëstu nañu gën a nañu gën a xam fu ñuy teg seen tànk ku nekk nag ak sa style mm. donc bu kenn copier kenn ku nekk jëla sa style ñu respecté suñu kenn yow bu ñëw ne da nga calme rek style calme la war la keneen war a war a mm-hmm. Mm-hmm. ñëw ne par exemple keneen dafa dafa tàng rek mm-hmm. kon keneen par force même style la war a utiliser donc bu ñu copier donc ku nekk ak say style ku nekk nañ ko bàyyi ak say style lu mu sentir rek ñu def ko donc loolu laay conseillé ñuy waaj a ñëw dañu ñëw ak seen ngërë ñu avancé voilà mais affaire de buzz yi moom très sérieusement man ah, a na ñuy ñëw pour buzz mais nag nañ ñëw par amour ak par passion parce que mooy tax ngay gën a avancé ngay gën a sonn di gëstu ji bi ci nekk daal. Mm-hmm. voilà moo tax ngay gën a xam di ci nekk am nga koy waxee rek saa su ne nit la nit la euh, fii nit la koo xamante dama naan nit ki boo ko xamul bu ko jugé nit boo ko xamul bu ko wax ci moom de c'est ñoo bokk milieu bi bi ñu xamante ne yàggul noonu mais gis nañ ci moom nit ku yaatu gis nañ ci moom nit koo xamante bëgg na nit waaye dañuy kontaan ci moom saa su ne rek te naan ko la jàpp rek ah xëcc bu dakkul digg mais si sax ni ma ko waxee sànq sa xol yërmande sa yaatu. buñ coow la amee la. kenn dama ko def pour sama xol mun jiif jàppalu ma ko dara nee naa barki Serigne Touba bu ma nekkal àddina ak àllaaxira mais taalibi Serigne Touba pire Pawlish Ba bu ma dóoree ba pare ba may génn ba sama xol set ci dóor bu ma dóor parce que dama ne yàlla am na lu mu namm ba tax mu jaarale nii samay mbir donc comme Serigne Touba laa jël comme référence buñ ko defee luñ koy def ba mu lumu lu def baal naa leen dafa baal mënoo bëgg nit ki nag te doo roy ci moom jéggal googu muy am vis-à-vis ca ko def lu mett yi ba noonu laa jëlee jéggal googu def ko punishment maa ngi koy wax nii man moom jàkkaarloog man mm-hmm. punishment baal bu ma la baal def lu ko pour kenn de c'est pas parce nit ñoo ma ñaan ma def ko def maa la baal nga mm-hmm. xol bu sedd buy mm-hmm. nit na da juum nit laa damay juum te dans l'avenir danga may soxla ji mënul ñàkk daf may soxla ji te mën na ma soxla ci beneen anam i fi fi yamul rek ci fi fi présentatrice mhm. mais fi fekk yeneen yi te àddina dafa tëradi mhm. dafa tëradi donc Pawlish sama xol bii dafa set rek baal naa la ci xol bi seen buy àdduna amul solo lii mënutoon ñàkk ci mën a yeewu mhm. yàlla am na lu ci nam mu dem mhm. donc loolu la dama ko baal parce que dama ko sentir naturellement mhm. su ma ko sentir lu doon élage du ma ko def man nit du ma forcer pour ma def dara parce que xëy nit nag dinaa la cëral mën nga ñoom ñaan la ñu sekk ko nga ñaan ma mu may la mais nag balaa nga lay may dina fekk sama xol nangu ko nangu ko dama ko nangu nit di ñaan ma ma baal te yàlla tax nañuy baale te yàlla tax di jéggale te yàlla tax na ku dul jéggale kenn du la jéggal moom it ñu ngi koy kontaan ah, ndax bi ñu mbir mi amee métti woon nañu ñëpp waaye euh, nan nañ koy waxee rek bi nga xamante ne mooy njëg njaag bu bàyyi rek ñun ñëpp la ñu bàyyi ndax it beeruñu kenn mais xëy na mu demee rek moo taxoon ku ci nekk tey amal sa xol ndax lu euh, ñu waxee ñu bokk teen ay gocc la olof yi di waxee ku laal élage dina métti fii si milieu bi nga xamante ne moom la ñuy bokk waaye it nag ni ñu koy waxee rek nañu rafetal nañuy joxante cër nañuy bennoon ndax leen di wax rek ñun pour nekk waaye yéen ñun ñoo fi nekk ba tax lu ñuy def rek saa su ne nee rafet nañuy joxante cër bi temps bi tënk nañu waxtaan bi neex na bëgg jël sa temps lan nga tàqoo ko benn internet Sénégal 221 voilà alors di di kontaan ci yow El tamit maa ngi gis seen mu ngi nice mon frère yow yaa nekk yow yaa fi nekk vraiment alors di di di kontaan rek mm-hmm. ci ñëw bi ngeen ñëw mm-hmm. ndax wax naa ko nee naa euh, jamono jii laa xam dëgg-dëgg mm-hmm. ñi nga xamante ni jox nañ importance ci ba léegi site internet yaa ngi woote télé yaa ngi woote fu nekk def naa fa interview euh, bu bu ñu amutoon lu leen métti. Mm-hmm. tey jii du ñu ñëw. Mm-hmm. ba di ma defal ITV. E ah. mais am lu leen métti moo tax ñu ñëw. Mm-hmm. te ko bokk. dama ko waxee armée bi lu mu solidaire yi. bu ko defee rek. non bi kenn dootu kenn dootu ñu ñëpp. tu vois euh, parce que ci biir loolu la am benn association bu tudd association des la nekk présidente bi manqué de passage. moo am sama numéro. ñoom ñëpp animatrices yi nekk fii yëpp présentatrices yeeg yi yëpp ku métti lu ko. association bi Diwan ñu tudd donc maa ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois de plus di mastawu suñu waa kër di leen mastaw bu baax sama maam famille mu metti loolu ci côté ndax ñëpp ko woo sama yaay sama papa sama famille yaay sama famille papa rawatina samay xarit waaw man après dama rendre compte man naka te man nit ñi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp na may suivre kon ah kon baax na donc samay xarit. ñu mm. sonn di message di appel yu ci bëri maa ngi def deux quatre cent cinquante six messages yoo xamante ni tontoo wu ko. parce mm. que Serigne Touba Mbacke ah ah ay appel yoo xamante ni ñu ci bëri xoolagu ma leen. ñi mm. ma message te xaw ma leen ni ma woo di dem Facebook di ma xool. di dem Instagram di ma xool. mu ëpp sax foofu que ñu ñu ma di donc ñoom ñëpp maa ngi leen di leen sant di leen ñaanal suñu borom fépp képp ku lu waay nekk rek yàlla nga ci gis yokkute et di leen wax rek. dañu xaar fi fii ndox du bàyyi noonu. Hmm. maa ngi waajal lu garaaw eh, doomu Saloum laa ñun du ñu daw du ñu rasu waaw ñun ay gaynde lañ dañuy xuus donc Pawlish Mbaye maa ngi lay ziare wu di nuyu sama PDG Babacar Diaspora 221 ak équipe bu Diaspora 221 yëpp. et hmm. dinañ jox rendez-vous très bientôt di leen wax aussi. des da damay def ay live si mhm. Instagram bi bu ñu defee Fifi Diaspora 221 rek di ngeen suivre tamit sama yeneen actualité yi fa nekk. El mon frère kontaan naa ci yow mais da nga sañ sama. ah ñu ngi def de ànd ak sama frère boobu noonu rek Ousmane Sarr borom excellence couture. ku def loolu borom excellence couture. Ousmane kañ lay ñëw man. père naa la boole sama xarit bu ah. nga yëngalee ci man dee ko yëngalee ci maman. mais dégg naa waa Diaspora bi dajale nañ seen ndawtal an sama wàll. <laughs> sànq rek interview bi mënoon def ak jigéen wax lan la mën a wax. yéen ngeen ñëw. di dóor seen ah, jigéen. ngeen war a ñëw ndawtal ma mais cameraman waxam ci loolu. Ah, ñoom ñu war a ñëw ndawtal ma. ñu ñëw bëgg a jël xaalis bi nga xamante ni nit yaa ngi koy man sama ndàmpaay laay laaj en tant que yéen samay con samay confrères. Ah, yéen yow tey lan nga ma indee. waaw man leer na ma ne ñu bëri ñu bëri fu mu nii ñoo lay assuré xalu tabaski. waaw waaw waaw am na loo am na ñoo xam ne moom. commencé nañ seen i mbir moom. mais yow man dama bëgg en tant que mon frère yow nga xam ne ndaw fi bàyyi yëpp. PDG Fifi nañ ko seet seetal bu bu. Euh, waaw moom bu ñu komp na. waaw kon PDG komp nga li. PDG moom du dina bàyyi xel loolu. mais yow après maa ngi yor dinañ defante ne la. amul benn problème ma ragal ma loolu. man damaa tàppe loolu man. ma xam nga man murit laa. xam nga murit day xel. jeex na ah. jeex na xam nga murit nga toogal. kon nag yow waaw bamba ji nag. ban ngay doon Baye Fall wala. waaw kon yaay Fall. ayca kon nañu doxal caaw noonu laa koy waxee mbokk internet Sénégal 221 221 point ñu koy waxee rek sa su ne. ñoo leen di indil ñeneen ñi nga xamante ne yéen ngeen di xaar fii ci Sénégal 221 point com ba taxit tey li ma ko waxee rek ma dalal ki nga xamante ne c'était la grande animatrice ah di Fifi Touré sant bi ma xawoon naqari nag maay Touré ah. ah foo gis yow kay waaw waaw garaaw. comme nag mooy seet si tey dama lay teral. sama buur nga amu ko loolu. noonu la demee Touré Touré yëpp may seen buur ah boo taxee ci laa leen di déggee bu baax a baax di leen kontaane. di leen gërëm ah di kontaan bu baax a baax ci jàpp ak ànd bi nga xamante ni ñu ngi ko ànd ak waa Sénégal de 221 Belcom nii rek la ñu koy defee ak yéen ah li ngeen bëgg li ngeen di xaar ak li ngeen di indi ci laa déggeewaat bu baax sama cameraman bi Thiam Demba ak bu ko kenn du moom de. kenn du moom. waaw Thiam maa ngi lay bëgg de. moom day pël bu rafet ak di chine bi. waaw pël bu rafet maa ngi koy bëgg bu baax nee naa saalum saalum ñoom dañoo imposer seen bopp ñëw fii. di wane seen bopp. donc sama cameraman maa ngi lay nuyu mais chaîne bi naka fi bàyyi tamit nga xam ne rek kër bi. balaa ñëw balaa ñëw pare léegi mu dóor ñu juróome caméra bi ci am tëjal ñu dem. bàyyi nga ko dóor bàyyi nga ko dóor dama ragal dóor dama ragal ay dóor. kon nii loxo bu jub ma tegoon sama kanam lay am. kon micro bi laa lay tàllal du loxo bi. waaw tàllal la nag est-ce que duñ jël tamit distance dama ragal daal mon frère. mais waa Sénégal kontaan nañ ci. maa ngi gën a nekk très franchement dinañ joxoon très bientôt incha allah. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu jërëjëf Thiam ñii rek la ñu koy defee ah. di leen jox dig daje ci beneen numéro